muy mille cent onze ci nasaraan yu tegul benn ma bëgg fii ñetti fan ku mën a liir fexe ba mokkal ko te mu bañ laa réer ndax bientôt dama leen di soxla ngir réew mi mën nañu ci maase farlu ngir soowee réew mi duma ci sori ndax lu nekk ak waxtoom waaw su ma nee bax baxa kon waxtu wi day waxtoom yàgg na fi te musuma cee waxe nii dëgg la daan naa ko jàngulu ci lu mel nii millions ya fi jàngoon kenn fàttewu ko ay ate ate at waaw kenn fàttewu ko waxtu wu nekk nag ak la cee xew la mu laaj jamono jii nag waxtu wi bax baxaal la laaj wa salaamu ala man itabbaxal huda